waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le dans son domaine. ah xam naa sëriñ Cheikh Béthio bég na tey de sëriñ Saliou Thioune xalifaam yónni na fi doomam ak soxnaam rakkam Seydina toog mu jaarale fi mu la jaarale boole la ak sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké tey a tax bisimilah. jërëjëfati sëriñ Touba jërëjëfati sëriñ Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Amadou Ba, Monsieur le Président du comité de pilotage du musée du mouridisme Serigne Chérif Fantama di Mbacké Fallilou monsieur le représentant du khalife général des mourides à Dakar Serigne Mbackiyou Faye mesdames et messieurs en vos grades et qualités tout protocole respecté honorables invités sponsors et mécènes mesdames et messieurs chers mbokku talibé Quiconque me jette par refus de la volonté de Dieu et par haine, qu'il sache le m'a comblé de sa grâce, dit Cheikh Ahmadou Bamba, illustration de sa dimension spirituelle exceptionnelle. C'est principalement ici, à quelques encablures de la gare de Dakar, du jeudi 19 septembre au samedi 21 septembre 1895, que le Cheikh séjourna avant d'être déporté par les colons pour le Gabon. Loin de neutraliser le symptôme, cet exil renforce sa sainteté. 129 ans après, nous nous retrouvons dans ce lieu pour commémorer son illustre œuvre. Il n'y a point de hasard chez Cheikhul Khadim. D'un Le mot patrimoine renvoie à l'héritage du Père. Serigne Touba est un bien commun partagé que nous devons collectivement préserver. Il est un patrimoine unique car il constitue le repère exclusif de notre identité collective sénégalaise et donc de la nation. Une source et un lieu de mémoire globalisant et universel fondé sur un corpus de valeurs à la fois culturelle anthropologique, politique et sociétale. L'héritage que notre vénéré Cheikh nous a laissé est inépuisable, donc infini. Le patrimoine mourite va des objets, faits et actes les plus matériels et concrets, géographiquement et historiquement constitués, aux legs abstraits, cachés, mais toujours intellectuellement construits. Le patrimoine mourite est un facteur d'unification qui dépasse largement le Sénégal, mais épouse l'Afrique et l'humanité. Préserver l'œuvre de Cheikh Khadim est la mission de notre Khalif général, Cheikh Montaha Mbake. Yalla na fi yag te Mission qu'il nous délègue, mais partage avec nous, talibés. Serigne Montaha est le cœur de cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est en amont, pendant et en aval de son organisation. jërëjëfati Mbàkke balay sa la CEPCAP est le ndigal qu'il a donné à nous tous sous la supervision de Serigne Chérif Fanta Madi Mbacké pour préserver à des fins d'élevation tout ce qui concerne notre religion l'islam notre croyance et adoration au prophète paix et salut sur lui tout ce qui peut servir aux sciences et à l'enseignement. Avec sa bénédiction, la découverte inédite des six photos que nous avons ramenées de la France grâce au PASTEF et au passe-passe des Mourites et des Sénégalais a revivifié chez chacun d'entre nous le désir ardent de répondre à l'appel du calife. La mise en place du Kourou Barkelou ou musée du Mouridisme. Un lieu de mémoire impossible à oublier à partir duquel les Sénégalais et l'humanité pourront réinvestir la voie tracée par le Cheikh de leurs affects et de leurs émotions. En lien avec l'État du Sénégal, notamment le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, nous devons mettre en œuvre cette communauté de conscience et d'action avec une mobilisation exceptionnelle capable de recenser, d'étudier et de faire connaître les éléments du patrimoine de Serigne Touba. La vente des photos s'inscrit dans ce dernier objectif, car c'est ce patrimoine qui nous lie, nous tient, constitue notre, notre bouclier contre les différentes formes d'extrémisme. Si nous le négligeons et que nous le perdions, nous serons détachés de notre spécificité, de notre force, de notre équilibre du Sénégal. Les enjeux autour de cet héritage collectif sont multifactoriels et sa préservation doit être paramétrée dans tous les plans de notre société. C'est la raison pour laquelle la démarche qui sous-entend cette CEPCAP se veut inclusive, ouverte et pluridisciplinaire au regard de la composition du comité d'organisation, que des experts intervenants et des programmes co-construits. Du 2 au janvier Vous aurez droit à des conférences basées sur des analyses réflexives pointues et des expositions inédites en lien avec l'histoire et la vue et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Son Excellence, le président de la République, monsieur Macky Sall, que la communauté mourite, en commençant par le Khalif général Serigne Mountakha, remercie vivement, clôturera cette semaine emplie d'histoire d'enseignement et de vie. Je voudrais ici également saluer Monsieur le Premier ministre pour son implication toute particulière à la réussite de cette journée, de cette semaine. Je voudrais ici également saluer de nouveau l'implication sans exception de toute la presse sénégalaise qui a œuvré à la vulgarisation de la CEPCAP et à l'importance de la levée de fonds lancée ces dernières semaines. Je lance un appel solennel à tous les Sénégalais d'ici et des diasporas d'acquérir une photo, c'est préserver une mémoire vivante et vivace. C'est également contribuer financièrement à la construction d'un édifice unique dans son mécanisme d'organisation et de fonctionnement similaire aux standards internationaux et adapté à la culture mourite dont la spécificité et l'originalité ne font plus que de doute. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine du patrimoine de Charmat Bamba.